nataalu fanweer am na ñu daan jaamu seytaane mbaa rab mbaa ay xërëm laata ñuy gëm Jésus ñi ànd ak Jésus waru ñoo jege seytaane mbaa ay xërëm ñu ñi gëm waruñoo ragal seytaane dañoo war a ñaan yàlla mu musal ñu si